commissaire Boubacar Sadio maa ngi lay nuyu. yow commissaire divisionnaire à la retraite nga ayubés bi nag mm-hmm. daanaka nga gën a fës lool ci actualité bi li ko waral di sa convocation ca DIC la ko sabab it mm-hmm. di lettre bi nga xam ne bindoon nga ko jëmee ko ci mm-hmm. président de la république ñu siiwaloon ko mm-hmm. ci yéenekaay yu bari yow euh, ginnaaw bañ la woowaatee ngay waaj di dem ñu ne la itam jarut ngay yegg si ndax mbir mi euh, daal nañ koy classé sans suite noo jàngatee cëppaandawal euh, li nga xam ne defoon na coow ci réew mi muy sa lettre boobu waaw ni ma ko jàngatee foog naa baax na aussi pour Euh, seen auditeurs yi ak seen téléspectateurs yi quand même ma wax ni que dimanche si booru dix huit heures booru six heures si ngoon waa digg ñoo foofu beneen yëg naa boo xam ne dama wax tuuram quand même mu ànd ak ñetti nit ñoom ñeent la ñu woon dama wax ne que dañ maa soxla dañ laa soxla ma dugal leen sama salon ñu ne ma léegi euh, kilifa dig bi moo ne nañ la jox convocation ma ne leen bisimilah convocation ñu ne ma encore euh, kilifa dig bi nee na euh, dañu ànd ak yow ma ne ko eh, fekk ni demee ñu ànd ak yow convocation bi kay jarul kay ñu ngi koy bind kay naa jóg rek ci ànd ak yéen hmm. bon ma jóg solo ñoom ah ñu des affaires générales mu ngi fële ci palais de justice ah, moo toog foofu di xaaral njiy tuuti chef brigade bi de nuyu ma vraiment jox ma cër bi nga xam ne moo war vraiment aussi mu ne ma léegi nañu xaar chef DIC bi ñu aussi vraiment il m'a reçu ñu toog si bureau bi euh, ñu ne ma daal commissaire bi tax ñu oo la bon euh, affaire lettre bi nga bindee woon la si président de la république donc ma ne ko waaw bon si sama xel sa ma ne ko bon loolu xam xamul naa ko sama kër quand am na expérience bu doy pour xam euh, yéen yi quoi parce que bésu dimanche la woon après dix huit la woon et ensuite amuñu woon mandat d'amener donc bu ma doon keneen sax xëy na doon naa fippu sax quoi mais dama ne jaru ko ñi seen liggéey la ñuy def vraiment bu ñu sañu sax xëy na dinañu am kersa sax di ñëw si di ma seet si daal bon donc man euh, lañ ma booleek ak benn inspecteur euh, muy jël sama déclaration laaj nañu ci lu bare bare bare bare tontu na waaye li ma leen njëkk a wax daal mooy lépp loo xam ne wax naa ko ci biir lettre bi loolu nàngu naa ko gàddu naa ko waaw du ma si dellu gànnaaw benn yoon. ma dolli ci ne lépp lu ma mës a bind ci journal lépp lu mës a mës a wax ci télévision lépp lu ma mu a wax ci rajo yi naa ko man la vraiment j'assume la lan ci responsabilité kooku moo amul benn werante dellu ma ci gannaaw dellu ma ci euh, xuusuma ci kanam aussi voilà fi ma ne woon rek laa nekk bon bi ñu paree nag euh, boor yi euh, onze heures ci guddi ah onze heures et demi ñu ne ma léegi commissaire signé PV bi boo ko signé ba pare moom da ngay ñibbi Eh, ñoom seen bopp sax ñoom ñoo ma andi ah ñoom ñoo ma andi ba kër ga ñu ne ma léegi dañ lay jox convocation pour bu subaa nga dellu si euh, seize heures trente maanaam quatre heures et demie bon man ma jàpp loolu fekk ni euh, bi ma liire tool bi ma gis tuuma yi nga xam ne moom la ñu teg sama sama kaw nopp waaw ñu ne ma ma saaga président mais première infraction bi deuxième bi. ñu ne ma man dama joxe ay xibaar yoo xam ne dëgguwul mooy ñaareel bi ñetteel bi ñu ne ma léegi euh, man maa seet daal euh, si samay pexe si samay jëf daal lu may salfaañoo daal vraiment li nga xam ne mooy kuréelu réew mi waaw ñetti yooyu lañ jàpp mm. te man xam naa ni ñetti yooyu di Sénégal doone Sénégal ba léegi amul kenn koo xam ne mos na la te daan yooyu te demuloo mandat de dépôt waaw moo tax man bi ma ñibbee te ma doon préparé mais maa ngi wuyu ji xam naa dañ ma yóbbu si procureur procureur yóbbu ma si moo taxoon ma jël sama saal dugal ci samay yére samay t-shirt yenn àndandoo yi maam yére yu yoro ci oyof daal rek jël sama kurus jël sama livre jël quelques euh, sama yenn garab et cetera mm. te saag bi fi may waaj a wàcc nag le chef dig bi téléphoné na ma commissaire waa convocation bi ce plus rappel ni ma ko wax si tubaab mooy ce plus d'actualité daanaka day loo xam ne eh, eh, dese nañu ko suul daal bon fa laa yem loolu laa ci am comme yéen vraiment. ñu ngi leen di jàngatee ko nan yow nga jàngatee ko nan. non aw ma lu ma ci jàngat parce que xam ma exactement li tax. li tax euh, mais xam nga commissaire de police la euh, yàgg naa def enquête <clears throat> ñi ma doon def enquête xam naa bon ñu ngi def seen liggéey mais yaakaar moom mu gën ma xam enquête aussi. donc euh, li ñuy waxante foofu ak li ma bind foofu ak li ma tontu foofu wow loolu secret institution bi mayu moom ma wax ko. E mais je crois que je suis suffisamment responsable pour xam lu may tontu tontu bi li eh, muy ut xam naa ko li may tontu aussi xam naa ko de telle sorte que bon vraiment yëf yi daal la demee daal noonu la demee mais nit ki da ngaa wax dëgg yàlla mënu ma ko xam nag mënu ma ko xam noonu laa ko liggéey rek d'accord mais ci sa xam-xam ak euh, xëy na nu yëf yi demee lan nga jàpp ne moo nekk ci suuf ba tax ñu classé ko sans suite ndax wax nga ni li ñu la doon toppee képp ku mu ku ñu ko mës a toppee euh, kaso nga fanaan yi waaw loolu nga loolu nga baal ma nag <laughs> bon xam nga puisque tey loo xam ne xëy na sama sama xalaat lay lay doon njort rek doon. nga naa njort daal je préfère bañ ko wax ba pare ñi ñi di ko interpréter na. d'accord waaw waaw am naa sama expérience bopp euh, comme de police laa daal te commissaire de police du waxantu. d'accord nangul nañ la loolu. Euh, ñu bari nag dañuy laaj euh, mm-hmm. lan moo sabab daal ngay génn di wax di critiquer ñenn jàpp ne sax xëy na ndax amoo ay ambition politique. déedéet awma ambition politique li tax may bind te yàgg naa bind ah ñi ñu war nañu ma ko seedal pour ñi nga xam ne dañuy lire journaux yi ñi nga xam ne dañuy suivre télé vraiment ñiy déglu rajo yàgg na ay at a ngi nii maa ngi koy def. li tax nag ma koy def euh, euh, du dara lu dul sama devoiru citoyen la si réew mi laa bokk te réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk président de la république waxuma sax ministre parce que ministre yi dañ leen a far président de la république askan ñi moo jël baatam jox ko ko ne ko président jox nañu la sa baat jox na leen sant yëpp lu la neex nga def ci kaw mu jaar yoon ci kaw également mu bëgg a bëgg waaw léegi président mu ngi doxal du loo xam ne moom moo ko moom parce que euh, nguur gi donnu ko ngeen baal ma mais donnu ko si waa juróom di yëfam donc ñun citoyen am nañu droit bu ñu demee ba gis ni xëy na kii mu ngi jaar yoon wala li muy def nii méngoowul ak li nga xam ne xëy na ñun mooy sunu sunu njëriñ mais am nañu droit apprécier am nañu droit apprécier du lu ko neex mu def waaw parce que bu ñu gisee xëy na nu muy doxalee réew mi mën na dem si jur safaan boo xam ne xëy na ñun ñëpp na ci ku nekk am nga droit taxaw ne ah man daal lii naa ko gisee lii naa ko xalaat donc loolu laa wax enquêteurs yi ma ne ko sama opinion laa joxe bon ku nekk nag ak ni ngay waxee xëy na man euh, sama njàng soriwul ba nga xam ne xëy na ay mots yoo xam ne xaw ma xëy na lu muy tekk ba ma koy employé waaw xëy na loolu moo tax ba nit ñi xëy na bu ñu liir sax ñu yaakaar ni kii mu ngi saagal kii mu ngi nangam nangam mais euh, vraiment qu'il fasse attention sama yéene du saaga président de la république parce que quand bu ma ko saagal si peuple bi yëpp laa saaga mais am naa droit critiquer ko waaw critiquer ko nu mu gën a sévère sax ci li nga xam ni euh, nu mu tuddati moom la parce que anglais yi doon nañu wax ni il faut être dur avec le crime mais il faut également tubaab bi wax pour ma paraphraser ko damay ne il faut être dur avec nu mu tuddati la malgouvernance il faut être dur avec les causes de la malgouvernance loolu rek la du leneen quoi. du leneen amul beneen da nga jàpp ne président Macky Sall ak ñi mu àndal ni ñu yore réew mi fi mu ne baaxul. waaw non non baaxul baaxul pour wàllu xeex aussi maa ngi yëg Sénégalais man commencé ma xeex léegi de. Hmm. maa ngi commencé xeex 87 1987 ci radiation policière donc am na léegi fanweeri at ak ñett maa ngi xeex donc dina doon naa jëfalante ak état bi. man euh, li politique def na nañ ma ko dama topp dema enquête dama filature et puis yooyu def na ko yooyu xam naa ko man jàpp naa ne parce que ñoo xam ne nee nañ Macky Sall euh, bongo waaw xal président bu baax la gis-gisam rafet na moo ñu yóbbu si émergence dina ñu yóbbu si naataange ba nga xam ni kenn du xiis kenn du maar ku bëgg a faju faju ku bëgg dem jàngi jàngi et cetera ñoom ñoo koy wax waaye nag am na sénégalais yoo xam ne si laa bokk nee nañu ñun dañuy gis ay jëmul kër parce que ñu ngi dee ak mar ndox amul ah, école yi fi mu nekk xamul ah transport bi kenn xamul ah, sécurité bi fi mu mu ngi sooxee ku nekk am nga sañ-sañ gis-gis rek la ah, waaw kenn mu tere kenn mu am gis-gis voilà c'est ça. mais commissaire lan moo tax nga dem ba yegg ci jàpp ne président Macky Sall mi warul woon nekk njiitu réew ci Sénégal. ci ci ni mu doxalee mu doxalee woon ci anam boo xam ne man apprécier naa ko.

ci réew ci anam bu gën a rafet bi ko Macky Sall yor mais également suñu droit la loolu jarul xuloo jarul xeex daal dafa nekk wax li nga xalaat rek jeex na Mhm. waaye seetlu nañu commissaire ne euh, yàgg na tuuti bi euh, changement amee euh, ci mhm. takk der yi ndax bu njëkk ñu wax ci tubaab mhm. la grande muette la ñuy woowee lu mel ni armée ak yeneen corps yi mais gis nañu léegi yenn commissaires yi yenn capitaines yi dañuy faral di génn di ŋàññ di ñu yore réew mi muy coppite yow coppite googu lan nga jàpp ne moo ko waral waaw yenn commissaires yi yenn colonels yi yenn capitaines yi fekk ba ñuy wax nekk ñu moo ci biir armée bi waaw koo xam ne yaa ngi sol tenue nekk ci biir armée bi li jigéen ñi nag am nañu sañ euh, du at bi bi nga retraité at bi ci topp rek nga commencé wax sax bi am diir boo xam ne euh, ñii pour ñu ñetti at la ñaari at la ñii juróomi yoo xam ne secret professionnel la ñu wax sax après secret professionnel nga téye ko ah, droit de réserve yi nga observé ko mais diir boobu du passé mais citoyen nga comme citoyen yëpp kenn ëppalewul droit am nga sañ-sañ effectivement di joxe sa xalaat ci nii réew mi di doxee waaw donc c' est ça la vérité quoi ñi ñëw si nañu xam ne noonu mais bëgg tënk nit ñi rek ba nga solee dalee solee tenue mooy bi nga am ñaar fukk ñaar fukk ak ba keroog ñu lay suuli doo wax dara ci lu jëm ci doxalu doxalum réew mi mais ko xam militaire yi ak bi da nga foog ñoom ñëpp ñoo ànd ak euh, président ak kii Macky Sall mm. mais fii laa ma ne ko loolu amul loolu amul ñëpp ànd ak moom xam nga léegi léegi sax billahi bi nga toog si ay militaire gendarme ay policier di waxtaan da ngeen nit ñi xanaa ay opposant la ñu waaye nag seen statut moo leen mënul may ñenn yi ñu koy fësal mais bu ñu demee nag ba génn nag mais ñu am nañu droit seen liberté de ton d' expression et de conviction ñu ko tudd alors commissaire ñu ñëw ci actualité. yorin réew mi ba tey la ñeel suuf si ñu jàpp ne ñu ngi koy séddoo ñoom kilifay réew mi rawatina ak mm-hmm. littoral bi ñuy wax waxi bradage yow loolu noo ko gisee ak itam xëy na lan nga gis comme saafara ci jàngoro jooju li ma gis comme saafara euh, mooy xam li euh, am na ay texte yoo xam ne ñoom ñoo Euh, sart yooyu ci sart yooyu la ñu war a sukkandiku pour seet ni ñuy gérer suuf man na wax dëgg yàlla sama xam-xam màccul ci wàllu boobu donc du ma ci xuus trop waaye ñi nga xam ne seen euh, xam-xam màcc na ci ñu bëri ñu ngi naan loolu n'est-ce pas man daal je crois que euh, d'ailleurs moom laa ñaan bépp candidat boo xam ne deux mille vingt quatre da nga bëgg présenter wu na nga jël engagement ni bés boo bu ñu la falee nga nekk président lépp loo xam ne tabax la ci jaarul yoon foofu nga toj ko muy hôtel muy villa ak kër comme ni ñu doon voilà ça il faut que euh, Sénégalais yi effectivement obligé candidat yi ñu jël engagement boobu sinon foofu côté boobu xam xam-xam dafa dañu fa xoos maintenant euh, littoral bi aussi du littoralu Dakar rek dañoo xam ne Sénégal bi yëpp la maintenant disons dañoo focaliser Dakar parce que moom mooy capital waaye nag vraiment dañuy def daal benn genre audit ah benn genre enquête boo xam ne vraiment ñu ne seet kan moo nekk ci dëgg kan moo newul ci dëgg et cetera mais nag ci li ma xam vraiment euh, ñi nga xam ne ñooy gérer suuf si euh, au niveau de l' administration quelquefois dañuy def lu leen neex ñu bëri ay milliardaires la ñuy waaw ay milliardaires ay fonctionnaires fu ñu jëlee seen xaalis fu ñu jëlee seen xaalis xëy na duma ko wax xam nañu fu ñu jëlee seen xaalis donc loolu dafa war a dakk ci biir réew mi waaw kenn rek di am fukki parcelle juróom seen lañ ko fi mën nañu jox ay firnde yu leer nañ ah benn parcelle rek nga jaay ko benn kër rek nga jaay cent cent cinquante millions alors que boo doolee baa doolee yaa ngi fi léegi ñax bu ñu dëkk sax amuñu ko quand même il faut que ça loolu il ñu dakkal ko nag xaw ma nag xëy na régime bi du ko def moo tax may ne treize minutes deux mille vingt quatre saa yu ma bindee rek damay ne treize minutes mille vingt quatre maanaam deux mille vingt quatre bii yëpp dafa war a dakk hmm. pourtant ñu bari ñu ngi jot ne président Macky Sall dina wut waaw ah bon sa suñu droit le plus absolu na jéem rek man la rek laa ko wax. Ah. boo amee conseil bu ma koy jox. waaw xëy na naa di ko jox conseil. Ah. mooy ñu bëri nga ñu bëri nga jox tamit da koy wut. il faut que nit ñi ràññaat la parce que am na troisième candidature ak troisième mandat ça fait deux troisième mandat mooy nga dem ne da ngay bokk ñu nangu la ko te xëy na conseil constitutionnel moo koy nangu le troisième trois euh, troisième mandat peuple bi moo ko joxe léegi keneen du ko joxe amul benn kuréel bu ko joxe mais moom si boppam bu ma sañoon ak kaddu yi nga xam ne jibal na ko fii bañ ko wax naa di yaakaar naa ni nag gore na gore boo xam ne je crois que dootu si dellu si gannaaw moom moo ne woon jeexal na jeexal na dootul utaati troisième mandat ah wax dëgg yàlla maa ngi ñaan daal euh, mu sàlloo ci ci ci wax jooju daal je crois bu boobaa xëy na dinañ yaakaar ne jàmm du am te doom si dëkk bi te ñaanu ko ñaanuñu ko yàlla daal. ñu ñëw commissaire jeexal ci mbas mi ak euh, ni nu ko yoree ci wàllu santé bi ak wàllu social bi. Euh, noo ko mm-hmm. gisee yow. bon ci wàllu santé bi wax dëgg trop parce que du may spécialiste am na borom xam yoo xam ne. Eh, ñoom la seen wax daal eh, war a mën a eh, dindi nit ñi ak di leen jox yenn information la wàllu santé moom vraiment xaw ma ci dara waaye nag ci ñi nga xam ne noonu la ñuy gérer de manière générale loolu ñuy wax force Covid 19 boobu kooku am naa li ma ci wax gis ngeen président de la république oo fi nit ñi palais de la république di leen recevoir kenn par kenn foofu déjà rek am na loo xam ne xewal na foofu ci laa ne lii du jëm kër. am na benn kilifa bu fa ñëw ñu ne ko raxasal sa loxo mu bañ bu doon dëkk euh, dëkk yenn dëkki la te mu am protocole bu am fu kooku du gis président de la République dañ koy daal di ne dëppal nga ñibbi sa kër waaw bon non seulement jàll na foofu mu dem ba ci président de la République moom président fi ko waa ji tàllale loxo moom war a war na banque loxo pour wan na ko effectivement lii amul waaye yooyu amul yooyu c'est des yoo xam ne dafay am lu muy wane donc président aussi bi ñu recevoir ñi ñu ba pare dafa leen ni dafa leen di kenn ku nekk ak peuple bi yëpp parce que wax na ko ba ñëpp dégg ko ne damay créer comité de pilotage pilo comité de pilotage mooy lan mooy kuréel boo xam ne si njëlbeen yi bëcc ñoom ñooy saytu lépp marché yi ñoo koy joxe ñoom ñooy discuter euh, ñooy distribuer lépp lépp seen loxo xaalis bi lépp seen loxo lay jaar du jaar si loxo keneen mais bi mu génnee defu ko comité de suivi la la def comme que mooy ñii dañuy def nga doog a topp seen gannaaw di seet li ñuy def baax na wala baaxul et cetera mais kooku kooku amul benn njëriñ d' accord teg na fa benn général général boobu euh, ay la yoon ku aay la ku xarañ ci wàllu militaire def na fi ay jaloore yoo xam ne ma euh, ñii ñaa ngi koy félicité ñii ñu kontaan lañ ci moom bëgg nañ ci moom mais général boobu li may wax mooy kilifteef euh, la ci mel ci ci ci genn jën ji muy Macky Macky Sall mooy président de la République moom général la nekk général en retraite la Gada mu ngi général en activité wala ci général euh, président de la République mooy chef suprême des armées i militaire bi su tëni fi mu ne fi mooy sa mooy mooy mooy sa kilifa donc kooku tam lu mu ko wax en tant que général da koy def waaye aussi am na loo xam ne dooli naa ko mën ko général bi moom li nga xam ne xëy na ci lay sukkandiku maanaam valeur yi mais bokkul ak fi nga xam ne foofu la soobu euh, donc par rapport au général ma ne ko moom euh, ku jub la Euh, xam militaire sénégalais xamuñu loolu jàngaluñu loolu waaye fi ñu ko dugal commission boobu ñooñu dafa am ci ñoo xam ne ay politiciens lañ donc ñoom ci loolu ñu xam politique di def affaire tappale di naxaate et cetera donc dina difficile moom pour vraiment mu jubanti yëf yi ah xam naa nag mu ngi góorgóorlu di def tam tilaay kattanam mais comité de suivi man aw ma ci yaakaar trop daal aw ma ci yaakaar trop. jërëjëf commissaire Boubacar Sadio. Ah. commissaire divisionnaire la retraite. ñoo ko bokk amoon nañu dalal la ci matinalu.